ñu jeexal Ameth ak benn image boo xam ne depuis démb ba léegi def na buzz donc partagé nañ ko Facebook TikTok Instagram partagé nañ ko partout donc Thierno may ñu image bi ñu ñu commenté image bi très rapidement dellu si waat donc gis ngeen Idrissa Seck ndaawal Kajoor <laughs> <laughs> voilà photo sa Seck bi page boo ubbi fekk ko fa léegi même commentaire yi ngay ngay gis euh, gis ngeen ñu jël ko noonu defal ko kii bu rouge bi focus ci photo bi parce que photo bi gis nañ maire Thiès mu ngi ci Amadou Ba mu ngi ci gis nañ ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci mais Idrissa Seck ci lañ focus ci photo bi. waaw luy problème bi. pour xale luy problème bi. man mooy problème bi. su muy buzz nga ciy dugg. <laughs> d'accord luy problème bi. bi mu ngi nii mooy photo bi. c'est parce que commentaire yi aussi waroon naa ko capturer. léegi lan lan moo tax yow lan moo sa jubluwaay boo fi xam nga man sama bës nu muy demee am ay si jàpp xam nga ni may bëse oh, dañuy wër information yi nga xam ne moo gën a faar muy TikTok Instagram Facebook YouTube wax ba ta yaa tudd man dama ne la Idrissa Seck photo bi foo ubbi fekk ko fa nit ñi ñi ngi koy commenté déjà ñi ngi naan kii ni mu taxawee ñi naan sol ko gi moo fi gën a gàtt ndaamal kajoor c'est parce que Idrissa Seck la. d'accord loolu naqari fii. ah fi indi bës bu ma naqari bu ma jaxaseeg nit ñi. Euh, euh, Thierno Ba joxaat ma photo bi. ah léegi léegi léegi man sama problème lu tax maanaam photo bi ngeen ciblé Idrissa Seck. Ah parce que dafa gàtt ah moom yàllaa ko bindee nii léegi nañ dem ci borom lu bees lële. lee léegi tenue bee lu ngeen ci wax. man photo bi ma. léegi nañ bàyyi loolu. tubéyu Amadou Ba bi ànd ak ay ange lu ngeen ci wax <laughs> yéen lan moo tax ngeen bàyyi loolu lépp dem ci Idrissa Seck. lu tax ngeen yem Ndamal Kajoor xaw ma ki seet téléphone bi ak ki ko indi laa léegi lu tax ngeen yem Idrissa Seck ah. alhamdulilah mais madame Sow. est ce que Idriss Seck da ci gàttaayam. Ah. non yéen waa Pastef. est ce que lii Idriss Seck gàttaayam dafa am dara lu leen ci naqar da leen wallaay bu jëmee ci gàttaay rek wala mbindam kooku mu wax dëgg fa yàlla duñ ci wax ndax yàllaa ko bind. waaw kon moo tax ñun bu dee ci eh, gàttaay la ñuy wax ak bi ko yàlla bind. ma loolu moom du ma ci commenté wax dëgg yàlla mais ñëpp ñëpp mënuñoo mel ni Aliou Sall. waay mais ñëpp mënuñoo rafetee ni Ousmane Sonko. moo tax nañu nangu. ñëpp dañoo a toll ni Aliou Sall. waaye xam nga ne ñëpp dañoo mën a toll ni Aliou Sall déedéet ñëpp dañoo man man a taay fi jantal ni man ak Ousmane Sonko dafa mën a. déedéet réew réew ñëpp tey man man askan wi wax rek laa <laughs> la da nga am Idrissa kan. ah non la li Idrissa Seck sañ c'est de la <laughs> sañsa bi moom macha allah xam naa dafa réeroon dafa mode bi daf ko raw lu yàgg muy sog a génn. j'espère que loolu jàllul. <laughs> maa ngi ah déedéet damay bës comme ni may bësee sax la première fois ma gis femme Pastef bu rafetee nii macha allah. femme Pastef yi rafetuñ. mais moom dama ne pour la première fois femme Pastef bu rafet. non mais mais ki dëkkoon Saint-Louis te nga <laughs> indi woon ko fii. te mu muuru woon elle était ah, très belle. allah non am na ku muuru woon ku mu indi fii ku dëkk Saint-Louis. bu Saint-Louis. Ah, elle est elle est ah. aussi. dëgg yàlla dëgg yàlla keroog ki ñëwoon fii barki démb ku góor ki. monsieur Dang honorable député. jantal la Ousseynou Luy. Eh, collègue de collègue d'immeuble jantal la waaw non damay wax jantal lan la. jigéen ñi ñëpp a jongama bàyyi tooñ. ma président bi ci boppam. Ah. xam nga nag kuréel goo gis c'est à l'image de la personne morale vraiment c'est à de la personne morale. léegi donc quand tu as des Farba Senghor faut voir bul jiñ dara Farba Senghor quand tu as des Aline Sall xoolal ca kaw bul jiñ dara Aline donc quand tu Samba Dang des des Ousseynou Ly Euh, ku bees ki avocat bi. et eh, maître Tall. maître Tall avocat beneen bi beneen bi nga xam ne ñun ñoo ko révélé ba muy toj léegi. maître am Ndiaye. Euh, non non euh, Ngagne Demba Touré. Ngagne nga xam ne Sénégal ko révélé ñooñu ñëpp boo leen gisee da ngay xool ca kaw xam ne ca kaw la ca kaw la différence bi loolu la différence bi loolu la fi mu toll nii boo demee biir réew bi Ndaamal Kajoor boo xoolee ci biir. waaw eh, bàyyi Ndaamal Kajoor fi mu toll nii maire yi Thiès ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp anglais nu mu leen neexee lañ koy waxee c'est à l'image du maire Babacar <laughs>